نون والقلم وما يسطرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين caggal nde jebtenen allah juulene nilaaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam oɗon ñaako e bas golnankulaare o mbeɗe on calmino gooto fof indi moon e yettoode mum onon banndiraaɓe maatam mbeɗen ñaako subhanahu wa taala kala ko rewa allah yo allah jaɓen on kala ko rewa allah yo allah jaɓan on onon banndiraaɓe julɓe amin calminoon e yimɓe alquran amin mbaɗa on siyaara mbeɗe yiidi njewtiɗen ko faate alquran rewtere nde ko faate rewtere nde faati koye jaamaraagal mawɓe men yewtere nde faati koye jaamaraagal jaamaraagal mawɓe men ne jeeya e ɗon jaamaraagal waawde jigginde alqur'an ne jeeya no ɓe mbaawirno alqur'an woni konnguɗi nanɗuɗi eɓe ɗum eɓe ɗen e eɓe tonngunoo ɗum ko wayno hayra tonngunaayo fa inna xayra laan kuntum xayra galaay laa xayraa nga jigéen inna xayra xasas ko naayo ali imran après diba ko wayno kasa laay fay jam jam habbun habbun e jeeɗiɗi on ko kayfa kadabu lan an wa qaada alladina kadabu baran haulai alladina kadabu hud fa kadabat mbargal faman azlamu mimman kadaba aktara alladina kadabu yettoga zumar ma kadaba alfuadu ca najmi ko jeeɗi ko wayno kayla kayla ɓañ jokko yab a nahli taw lahsab jenna hasri ɗum ɗon woni reɗinde ni jeeya hen ha e tongu sappo fii na laam bii na gallaay na tinjoo na xabraan xaa ifan yaar yépp nga xasas xaa i diina taara yépp mboori jigéen tomb laaya lan faar ak mbargaan maxal xaa isiina ca mudassir ni jee yaa xeen ilaa iblisa juróom ñaar ilaa iblisa jéedi bi abeelaan aɓee hijiri aɓee tahi bañ aɓee naayo lam yakun l arab qala l israil kana njenge astakbara jombaan mi jeeya heen gelle wittas ngeen jeego ma nan sax laal fan falaha l arab fa idan falaha braan fa yansahu llahu hajji naslahu jaal nastansahu ko jaatiyel ko jeeƴi ne ƴeeya heen riidu magum tonngu joyi riidu magum tonngu joyi bibi yaya fa bibi ya ya fa ko joyi joyi bi musrihikum bi musrihiya yépp birima yastasrihuhu qasas yastarihuna fandaak fala sariha jaal jaal ko yaati nejeeyahen ɓe gulamin alimin yettoti ngaafnga hiddiri ngaaftareya tongu ɓajjo safa nejeeya hen genn geleem ñaaro naar genn geleem ñaaro naar njeegom wal walidati laan walidani yet yëpp nga jigéen waddakirati lahza fazajirati baam mijeeya heen sunata lawalina naayo talli laayalan faal talli mboore faandaaka banko laaya hijiri banko mboore njenge njenge ko kahwi somin wii ɗum ɗum juutat to waktu o no faali minen yimɓe alquran yomin mballidir minen yimɓe alquran yomin mballidir maami raaɓe men ɓe gonɗa ko o ko jolfo o ko pula o ko naa alqora tan renndini ɓe yomin kone e ɗum mais haala seeɗa jof salamu aleykum wa rahmatullah mbokk yi maa ngi leen di nuyu baax leen ziyaare seen mbokkum alpulaar bu tële alpulaar seen mbokkum daara mu yàgg ca daara ja maa ngi jottali nuyoo ñu baax ñi ma àndal tàmbalee ko ci turu alxaaji sëriñ Seck C3 di ko jaarale ci sëriñ Fallu ak sëriñ Xaalim ak sëriñ Mbacke Sorong ak sëriñ Seck mi ñu àndal ak sëriñ Abdou Seck di leen jottali rek am nuyoo sëriñ Mbacke mu ñëw fii ñu am luñ jox planté ak yéen mi ngi ngi toroxal bismillah waaye man lii ngay wax ne koy ko laal waaw xam nga moom maanaam ndax li ma wax noonu la ah loolu moom loolu moom jaaxal nañu bëri waaye nag moom li may wax ne ku yaatu ku yaatu am lépp la waaye nag di lebal lu baax waaw lu baax moom yaatu na ci am lépp la baax moom ak jagle lay am ci taxaay bu baax ak day daan moo ko soxli moo ko yar moo ko jàng si si jëw yi moom yàgg na maa xam ne dana mën na ko waaye wala moom fekkoon naa ne moom eh, bu si nuyoo du si gën loolu sax sama li ko laaj xam maanaam dem ci boole yi nga xam ne wax ba muy dégg nga ci dugal ay baat yi pula dégg naa ni riido dégg naa tomb dégg naa maayo sàmm loolu ban ban ban jokkaloo moo am ci diggante nga tudd baat Alxuraan yi ci dugal baat yi pula lan mooy jëlaat sama ok jërëjëf sëñ Mbacke maa ngi nuyu bokk yu bari nag xàmmee naa leen fii maa ngi leen di nuyu ak ñi nga xam ne yëpp tey la sunu gis tàmbali ah, alxuraan fuuta la jógee ba mu jógee ca ya ci yéen la jaar ngeen liggéey ci liggéey yu mokkal ko daan ko bind defoon wàññi moo tax nga dégg ñu naan nii sidda sopp wala ñu ne nangam naayu wala njeew parce que ci yéen la njëkki riidu xam nga ni mooy ak faam tongu mooy ak xaalaw gumaalo mooy ak xaaka biir ngañ yi ak yeneen ak yeneen yu baree bari ci biir yoo xam ne yéen ko andi baaxoog mag ñi ak bi benn la maanaam li ñuy li ñuy liggéey benn la te mooy alxuraan rek moo tuddee ndax loolu kon wërëm sax ñun ñi suñu délégation bi ñu wëlbatikuwaat dellu si waat ci yéen ne leen noo ko bokkoon démb ka bi ñu bokk ba tey moo bi biñ ne sàpp mag ñëpp andi wuñ seen i fukk dañoo bàyyi sàpp ne njeego andi wuñ seen i seen dañ koo bàyyi noonu biñ ne naayo kadalik ndax lan ci maam la jaaroon rek mujj ci ay maam dikkaat mujj ci ay sët mujjaat ci ay sët kon loolu lay xamal ne mag ñi lu waaye masaana def dañ ko day bàyyi daw naan waa di ëmtul noonu noom amutoon xalkulaar la mu liggéey ci alxuraan ba ko joxee wolof ba danaan naa bàyyi ci mboxoon mu nekk ëllëg gi si biir lu ñuy ñett kon amul ci am man-man ab man-man mooy nga ne man bu ma ko waxee ni ma koy waxee déedéet kon loolu moo waral nga gis baat yooyu yëpp ñu bàyyi ci meloon bismillah bàyyi tur mais dañu ñoom ñoo ci liggéey dañu ci bare bare man tey jot parce que ngir lan ngir yittewoo boo xam ne yittewoo woon nañu alquran est-ce que ñun dañuy mujj ko suñu muure wala dañ koy bëri dañ koy nekk ci ñu bàyyi ko ñu ñu ñu dox suñu ñëw loolu moom mooy li nga xam ne xam ne moom mooy ci si maqaat yooyu ñoom Mbàkke naxwu day jàngale jàpp ba sarfu di jàngale dikk ba lii nag moom day dem fu bu ko neexee mu ne ca jàpp la bu ko neexee mu dem ca digg ba bu ko neexee sax mu dem ca bàmbali su boobaa li ñuy tuddee faay fi'aat naam aab tawkiid badal yooyu mooy problème bu nax léegi ñu def ci benn misaal bu gàtt kaatiban farihanun bu ko indi rek ci li mu doone kaatiban farihanun ñu ne dog te rakkam dugub kaatiban moom day dog farihanun ku ko dog mu daal ban xam-xam moo mën a jàngale loolu bu sax bi ndax kataba yaktubu kitaaban la farx man wala ñu ne kaatiban ji lan la ci saxale ndax day masdar ndax day maf'ul bihi léegi nag kii ak ndogaal dox tarakam dugg kaatiban farihan wa banaati xaalika wa banaati xaalatika ñu ne ka xaalik xaalika laxsaab xaalaatika laxsaab ba banaatika day dox te ko dox xaalaatika mu daal walladaani yaatiyaani ka walladaani ku ne xam ne mubtala marfuu bil alif ñu ne li maanaam ñu ne li annahu lil musanna yaaniha fi'l wa faa'il la jumla jëm moo nekk xabari maanaam maanaam ma nekk xabari boobu la kooku mooy kooku la naxu ma ngi ne la wala day lomb lii bi dafa cay am zaadi lay naar naar boobu lii ba mu yaa di lay doon yaa di xaar ko dog mu daal kon man andi naa ko ci naxu andi waat ko ci boole te bokkuñu day bokkuñu ñu ne wala day lonku zaani day naar yaati day dox yaati xaar ku ko dox mu taxaw na pourtant ko yaati ak yaa ngi xaar nga dox leen ñoom ñëpp wala yaati ak yaa ngi xaar nga aj leen ñoom ñëpp waaye nee na yaati xaar ku ko dox daal léegi dox boobu nag amuñu benn xam-xam bu ko jàngale bu dul sun mag baax yi fal yatanaafasil mutanaafisuuna niroo ba dee dox te rakkam dugg fal yatanaafasil day dox te mutanaafisoona koo ko dox daal loolu kon mooy njàmbaaru mag ñi ci niñ fexee ba ne gumaar buñ nee gumaar rek nga xam ne mooy ak xaaloo suñ nee jiitu rek nga ne mooy ak saal suñ ba ba yëpp jeex loolu loolu lu tax ñoom bàyyiwuñ rek tiim baat bi ne leen lii la ñu ko dañoo andi seen i matukaay ne nag gumaar ñu ne la lii daal di ba ñëpp na a xam ne suñ nee dee ak xaaloo rek mooy mooy tóob njàmbar boobu la woon kon nag alxuraan dafa am ay melokaan eh ah léegi kon man waa kay ñu ñëwaat ci damay su may sama xel la gaaw nañ def ci rahman njàmbar bu mel noonu xalaqa linsana min salsalin kal faxsal wa xalaqa janna min maarijin min naar ñu ne fagg ay ngoog du ma ko laal nga xam ne daan na fagg ay gi mën a daal di ne la li ñu xalaqa daa ne rabbul mashriqayni wa rabbul maghribayni fa bi ayee ngoog du ma ko laal marajal bahrayni yaltaqiyaani fa bi ayee ngoog du ma ko laal ba ca tabaaraka ismu rabbika ñu ne xaaral ma yu wakku yeesa ya yu fa fa yu hawasu fii bii mu bii kahawahu fii fii bii hu lam muta tax te kooku mooy tabaaraka ismu rabbika su fi ak fa bi ay nekk rek cof cof naa ko asalaamaaleykum jërëjëf sëñ Bakke wenn doj ñaari picc laa leen bëgg sànni wenn doj rek xajarun fi usfarayn yi ñu dégg arab mag ñi ci lay tàmbalee dal di ñëw ci temps bi man mii sama sama maam Fatmata dem la tudd biñ koy indi kër Ablaye Fat Sala Kébé sama maam mu góor Fuuta gi lañ ko jëlee boo ko ne kaay ma rey la mu ñëw moo jur sama baay direct te ku ne xam na ne dem bu demee ba njaago mu sëy fa ak kebe alxuraan kon indi maaj usari yi bi wax loolu lu ko dëggal la sama yaay jalasam man maay tukkulóor ci ndey ak ci baay wala ma ne maay xalxulaat ci yaay ak ci baay kon loolu rek man li naan al ayaanu yanubu mën a ba'da layli jàkkaarloo day wuti ñaari seere sëñ bi it noonu la mel ak gaa yi yëpp xam nga boo xoolee ci kii moom bi xam ne fir la ma tooñ ko soo jógee fii soo jógee fii na kon li ma bëgg a wax mooy indimage bi maa ngi dañ daan mayee ci li nga doon laa doon taalu jàngu jëneer bi jëneer bi lañ may soxna suñ mayee jëneer ba soxna jëneer xam ngeen bu taal bi tàkkee lumière bi ku ne xam ne ne foofu ak jàngalekat a fa fu mu ñaan soxna ñu may ko loolu moo waraloon sow ba nekk ca ñeneen ñi ca ñeneen ñi itam daan fa waree dikk ci sow ak ba ak ka ak ja kon indi maaj usal yi muy jaxasi ñëpp ñuy benn benn buum lënkale leen muy téere bi yàlla bi loolu moo waraloon mag ñi doon benn ba ci seen i def leen jëf leen siin fii nag moo def boo dem sant yi boo ko dendalee yi sañ a kaf sañ a wecceente ñëpp boo leen toppee rek seen maam dañ doon jàngale kon loolu mooy tënk bi ci gën a gaaw man mii ci laa bokk ba ca des temps xat ba ak xam-xam bu bari ba ku ne xam na ne yéen ay baykat am na fi yaakaar na xëy ci huit dem tool ba une nga wàcc jàng deux heures trois heures gontiwaat ba six ñaari waxtu nga amagul ci bëccëg boo dikkee dix huit heures ak dix neuf heures ak vingt heures nga jàngat yeneen ñett muy juróom bu fa jaree nga jóg ku ne xam na ne yaa ngi boole liggéey ak jàng waxtu waxat woowu nag yàqalutoon mag ñi ñuy mokkal yàqal toon mag ñi ñuy beqi yàqal toon mag ñuy bind kaamil yàqal toon mag ñuy jàng ba ay xalil alfiyatu ibnu malik sohra sittal jahiliya ak yeneen ak yeneen la ko waral mooy lan alhimma al aaliya itte ju kawe amut lu mënul Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu daal wax naan nangu rek am solo ki nangu dana def lim man lim mënut mu jéem ko ku gàntu nag lam man lay njëkk a gàntu ba du mën a yegg ca lam man asalaamaaleykum wa rahmatullah ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun